فجأني بما به فجاناك باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجاناك باق مميت والبقاء جاناك فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا قولي قول يحجل المرجانا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 Euh, ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar Cheikhuna Ahmadul Xadim ñoo ngi ñaanal Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te gën a doole ak wéram di beral siyaar nag Serigne Cheikh Anta Mbacke xalifa Cheikh Mahamadou Roqaya Mbacke ak mbooleem jabootu Serigne Modou Roqaya gépp mbokk yi noo ngi am mbégte di ànd ak yéen fii ci dëkk bi nga xam ne moo di Tawfekh Mbacke Tawfekh Mbacke nag di dëkk boo Eh, kii di Serigne Mouhamadou Rokhaya Mbacké mi ngi ko sosoon wala boog mi ngi ko sancoon ci atum 1941 jàpp 1942 ginnaaw bu mu jógee ci daara Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim doon wut ngërëmul yàlla ba am ko ci la ñëw nag fekk si fii waajuram di Cheikh Mouhamadul Mamoun Mbacké ci dëkk bi mu sancoon te mu tuddoon nil bi jamono jooju nag bi fi sëriñ Modou Rokhaya ñëwee ci la dem ci pël bu ñu wax mu ko saw mu dogal ko fi ay tool yoo xam ne ginnaaw bu mu ko dogloo ba noppi nag ba tàmbali fee liggéey ci la dem ci Cheikh Mahamadul Basir ibnu sëriñ Touba Xaadimu Rasul euh, mu tuddal ko aw tur tudde ko Tawfeex Mbacke dëkk boobu nag fi la sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbacke nekkoon daan fi liggéeyal yàlla diirub mu nekk ak waajuram di Cheikh Mahamadul Maamun lépp lu ñu liggéey def ko ci jumaa ji fii la sëriñ Modou Rokhaya daan baye addiyam di ko jox waajuram mu di ko defal ci jumaa yi Touba ji ba jumaa yi Touba noppee 1963 euh, mu continuer ànd ak waajuram ba ci 1969 bi waajuram wàccee ab liggéey mu doon xalifa Cheikh Mahamadul Mamoun Mbacke ànd ak Cheikh Abdoul Ahad liggéey bu mu liggéeyal Cheikh Abdoul Ahad ci suuf si la ko liggéeya bokk na ci liggéey yi mu njëkk a liggéey ci dëkk bii di euh, Tawfeex Mbacke jébbal ko Cheikh mooy bi sëriñ Abdou Lahad doonee sëriñ Touba sas yu mu ko njëkk sas muy liggéeyloo ko kër ci këram gi mu dëkkee néegub Daaru Salaam ba yi ji ci jiitu ci tànk bii la ko sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbacké liggéeye waaye ci la kon ne di ci liggéey ba ci yokk jumaa ji itam bi ko sëriñ Abdou Lahad wootee addiye ji ci jiitu ci dëkk bi la ko sëriñ Modou Rokhaya Mbacké liggéeye xam ngeen ne tappi jumaay Touba itam jënd na ko ay yoon ci nekkuk sëriñ Abdoul Ahad ak nekkuk Cheikh Abdoul Khadir lu mu ci man di doon rek la ko fondation ne ci dëkk bii la ko sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbacké liggéeye ba bâtiment bi nga xam ne moo nekk ci kër sëriñ Touba gi te sëriñ Cheikh Anta yeesalaat ko te muy nekk sëriñ Touba bi ñu fi saaree sëriñ Touba Cheikh Mahamadoul Mountakha yàlla na yàgg lool te ànd ko wér addiye ji ko liggéey ci dëkk bii la ko sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbacké liggéeye waaye dem ngeen ne xam ngeen ne jumaa yi Daaru Salaam ji nga xam ne tey jii moom la El euh, Hadj Abdoulaye Dia directeur général bu Sénéco di àggale yal na ko borom defaraat bokk yalna na ko sun borom may kattan gu mu ko àggalee euh, fondation juma jooju nga xam ne mooy juma ji Serigne Touba njëkk a am ci dëkk boppam bu moomal boppam di Darou Salaam euh, juma jooju addiye ja ko liggéeyoon ci euh, ci dëkk bii la ko Serigne Modou Rokhaya Mbacké liggéeyee liggéeye woon ci atum 1980 1987 nga xam ne mooy fondation jumaa yi Daaru Salaam ji ci dëkk bii la ko Serigne Modou Rokhaya Mbacké liggéeye woon waaye ku ne xam ne itam addiya ju réy jooju ñu dégg ñu jox Serigne Saliou Mbacké mu doon ñetti téeméeri barigoy gerte yu tegal ci dëkk bii la ko Serigne Mouhamadou Rokhaya Mbacké liggéeye woon dëkk boobu nag moo continué tey ba ci 1996 mu ne ci loxol Serigne Cheikh Anta Mbacke xalifa sëñ Modou Rokhaya Mbacke moom it lépp lu mu fi mas a liggéey teg na ko ci loxol ki fi nekkal Serigne Touba Khadim Rasoul ba suñ joon yàlla tey jii ñu woote waat ngóob mi nga xamante ni bii ci teewaayu Serigne Jili Abdou Khadir la. muy doomi sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbacke di rakk sëriñ bi sëriñ Mbacke Madina mu sëriñ Modou Rokhaya waaye sëriñ Makhtar Mbacke di taawub sëriñ Cheikh ak kilifa yi bokk àndal yëpp ci liggéey bi ñu àndandoo nekk fii ànd ko ak waa Darul Manaan waa Mbar Baawaan waa Daaru Salaam ak waa dëkk yi ko wër yëpp waa Sam Thialé ñoo àndandoo ñëw di ko di ko góob nga xam ne suñu ko liggéeyee ba noppi toujours sëriñ bi daf koy jébbal sëriñ Touba Xaadimu Rasuul ngóob moomu nag ci lañ nekk tey ji ak fas ko yéene ànd ak eh, taalibe yi ànd ko ak murid yi kon xam naa dañuy ànd ak suñu caméraman sëriñ si la mu wan leen liggéey boobu incha allahu rabbi bu liggéey bi noppee danañ déglu kaddu yi nga xam ne moo ci topp di kaddu yeewi mbooloo ak sant leen ñu ngi di gërëm di leen bàyyi ak sunu caméraman ànd ak ci biir liggéey زد رسول الله قد آوانا منذ الأمير ألحر العدوانا أنت الذي ألنت من آدانا بمدح من كتابه حدانا لرت من ظلمني فلانا ولانتقمت منه يا مولانا مدم كوسي صافيا جذلانا وللأمير قلد القزلانا يلاح يا من لم يزل رحمانا أيا رحيم لأدم أمانا نفيت من أحرجني مجانا بمدح من قد ألك السجانا عدم توجيه مكارئ القدر من جك شخص لأبدا محل قدر عدم توجيه مكارئ القدر من جك شخص لأبدا محل قدر إلي وجه الكريم الباقي ذو الأرض نصب والطباق ما رمته من حب جاح المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى شهدني ربي بأني عبد له قديم لنبي ويبدو حدم بنيته على يلاح يقضي الذي نازحني الإله دون مكاتب العبادات محا الدغر بي كل المذا يا جماحة وجه الذي يحبني يبيض mooy kenn ak a yéeme c'est-à-dire que ñuy liggéeyal kenn kese la ku wecc mbooloo barke maam Sara Fall بالعبادات محا تغر بي كل المذا يا جماحة وجه الذي يحبني يبيض يوم وجوه السواد تبيض أجر الذي نازعني ولم يتب شقاوة تدوم في أم الكتب لي بان أن المنتقى وسيلتي صلى عليه واحب وسيلتي يجدني عند مليك مقتدر كل ولي للجنان يبتدر باح بقمة النبي الأولياء عليهم رضا مفيد نيليا كرمني الكريم والمكرم بجاه من هو نبي المكرم ردني أن الله والمحتار وحميت كنيتي أختار من لم يوافقني في الذي أحب نفاه ربه إلى ما لا يحب هداني الحادي فلا أضل فمن يوافقني فلا يضل عني محاث ورداه الأكبر باق أتاني من قيء ذبري إلى سواي كل من أداني بصرف باق ذكر أداني إلى سواي كل من أعداني بصرف باق ذكره حداني محت حروف ذكري ضلالي كما تجود لي بالحلال جاد لي الباقي بما لا ينفد كما اشترى مني مبيئا ينفد كتاب ربي رفيقي أبدا به كفان الله من لم يعبدا سلامة الذي يلوذ بالحليم وبالنبي بي من المنفعلين شكرت من لي لا يوجئ الكدر في أبد وقاد لي بسر القدر شكرت من لي لا يوجئ الكدر في أبد وقاد لي بسر القدر لله قد فوت أمري مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا علي من ببقاء وصحاح وقادني كتابه مع صحاح وجهه الكريم زحزح الكدر إلى سواي وصفاني القدر لم ينحني در ولا أدناس وليس ينحو جئة القناس كتاب ذي الجلال والإكرام قالتني وقادني مرامي مد لي القل غنى عن غيره وكان لي الحب بأعلى خيره ترسي عن الغدب والضلال رضا العليم الباسط الحلال فدحت سيد الورى بقطي وإنه لي رضا ذمتي لم يخفى كون هذه القصيدة حقيقة تعطي الفتى مقصودا خوت منافع السنين والشهور خالصة لوجه مالك الدحور وأدأني الجميل في دنياي ببصر مقلدا سنيايا ناجيت رب العالمين مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا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 nee na sëriñ Jili wax ne. nee na sëriñ Jili wax ni. jaageen jëf. sëriñ Jili nee na jaageen jëf. jaageen jëf nag. nee na jaageen jëf nag. sëriñ Mudu Aminta nee na. sëriñ Mudu Aminta nee na. gàtt na lool. nee na gàtt na lool. waaye ku jëfut du ko dégg. nee na waaye ku jëful doo dégg jaageen jëf. te yoon wi ñu ne. nee na te yoon wi ñu nekk. jaageen jëf moo ciy maye dara. nee na moo ciy maye dara de. ndax sëriñ Tuubaa daa wax ne. nee ndax sëriñ Tuubaa daa wax ni. waq di xawaa ijël la si na daamu waq di xawaa la si na daamu yow yàlla fajal ma aajo yi ña nga xam ne yow yàlla fajal ma aajo ña nga xam ne ñoo sax ñoo sax ci di ma liggéeyal di ma liggéeyal ku liggéeyut nag nee na ku liggéeyul nag doo dégg jaajëf nee doo dégg jaajaf de waxaat ne moom sëriñ Touba. waxaat ne moom sëriñ Touba. suñ demee ba ëllëg yowmal xiyaam. suñ demee ba ëllëg yowmal xiyaam. fa nga xam ne kenn mënu fa dara. fa nga xam ne kenn mënu fa dara. kurut moom moomee. nee na moom moomee di xaadim rasul. wala ku yàlla gërëm. wala ku yàlla gërëm. sëriñ bi nee na. sëriñ bi nee na. su boobaa. su boobaa. ñi ma doon liggéeyal. ñi ma doon liggéeyal. nañ tàbbi biir àjjana. nañ tàbbi biir àjjana. kon nag. kon nee na kon nag. yoon wi. yoon wi. ñaq moo ciy maye dara. Serigne Fall nee na ñaq moo ciy maye dara. te ba ñu xëyee ak léegi. nee te ba ñu xëyee ak léegi. ñaq wi ñu yendoo. nee na ñaq wi ñuy yendoo. ku mu doon sa kër. ku mu doon sa kër. wala sab tool. wala sab tool. bu mi di jotee. bu mi di jotee. da nga wàcc. nee na di nga wàcc de. waaye bi muy tollu Serigne Touba. nee na bi muy moo tax ñu yendu ci. nee moo tax ñu yendu ci. yëguñu naaj wi. yëguñu naaj wi. yëguñu xaaxaam bi. ñu xaaxaam bi. yëguñu coono bi. yëguñu coono bi. loolee nag. nee na loolee nag. mennum Serigne Touba rek. mennum Serigne Touba rek. moo ko mën a fay moo ko mën a fay ñaq wii nee ñaq wii as gor xëy ca fajar as gor xëy ca fajar di ko ñaq di ko ñaq te yàlla rek tax te yàlla rek tax ba jant bi so ba bi so koo ne woon fay ko koo ne woon fay ko ku du sëñ tubaa ku dul dana woo ay bokkam nee na dina woo ay bokkam de ngir ñu fayle ko ko ngir ñu fayle ko ko te du te pay ga du mat nee na du tax pay ga mat kon sëñ Touba rek nee na kon sëñ Touba rek moo am pay gi moo am pay gi de moom la leen sëriñ bi bàyyee nee na moom la ñu sëriñ bi bàyyee mu fayal ñu boppam mu fayal ñu boppam sëriñ bi nag wax ne sëriñ bi nag wax ne ñi doon bay tool bi ñi doon bay tool bi am nañ jërëjëf de. nee na am nañ jërëjëf de. ndax li fi daje ci mbooloo. nee na ndax li fi daje ci mbooloo. xëy ba takkusaan. xëy ba takkusaan. xam nañ ne ñi fi nekkoon. xam nañ ne ñi fi nekkoon. donte duñ ay yaafus. nee na ñooñu duñu ay yaafus de. ndax buñ yaafusoon. nee ba takkusaan. nee na waaye nekk nañ ba takkusaan. ngóob mi àgg. ngóob mi àgg. waaye jaag bi des. waaye ko doon bay. nee na ñi ko doon bay. ay jàmbaar lañ. ay jàmbaar nee na ñoom it ngërëmul yàlla li ñuy wut nee na ngërëmul yàlla li nga xam moom la ñuy wut yàlla na leen ko yàlla gàttandoo yàlla na leen ko yàlla gàttandoo ñi nga xam ne nee na ñi nga xam ne ñoom lañ woon ñoom lañ woon ñu wuy si ñu wuy si moo xam ñu jóge daaru marnaan moo xam ñu jóge daaru marnaan moo xam ñu jóge ci mbar nee na moo xam ñu jóge mbar moo xam ñu jóge Touba nee na moo xam ñu jóge Touba moo xam ñu jóge Sam Thialé nee na moo xam ñu jóge Sam Thialé moo xam ñu jóge ca Sancaan ya nee na moo xam ñu jóge ci Sancaan ya moo xam fu ñu mën a jóge nee na foo moo xam fu ñu mën a jóge ñëw ci dëkk bii ñëw ci dëkk bii di tawfiix dëkk bii nee na dëkk bii 1942. 1942. la ko sëñ Modou Rokhaya sanc. la ko sëñ Modou Rokhaya fekkoon na booba. fekkoon na booba. sëriñ Modou Mamoun. sëñ Modou Mamoun. am fi tool. am fi ay tool. am fi daara. am fi daara. di fi bay. di fi bay. mi 1942. bi fi sëñ Modou Rokhaya ñëwee. bi fi sëñ Modou Rokhaya ñëwee. bàyyi ko ci daara Cheikh ko ci daara Cheikh Moustapha Mbacke. nawet si fi. nawet si fi. ba la dem ci pël bu ñuy wax muuko saw. la dara fii. nee moom moomoon àll bi. moom moomoon àll bi. mu yëkkati limub xaalis. nee na mu yëkkati limub xaalis. na ko damaa bëgg ay tool. ni ko damaa bëgg ay tool. kooko dogal ko tool yi. nee na mu di fi bay. mu di fi bay. diirut lu fi mas a bay. nee na diirut lu fi mas bay de. jox na ko sëñ Modou Mamoun. jox na ko sëñ Modou Mamoun. mu def ko mu def ko ci jumaa yi Touba. moom liggéey bu mu fi liggéey ne liggéey bu mu fi liggéey teg na ko ci loxol Cheikh Abdoul Ahad ne teg na ko ci loxol Cheikh Abdoul Ahad mu defal ko ci liggéeyu Sëriñ Touba mu ci tool yii ci tool yii fi la sëñ baye woon fi la sëñ Modou Rokhaya baye woon sëñ Abdoul Ahad ndigal sëñ Abdoul Ahad ndigal ngir mu def ab bëtim ab ab néeg ngir mu def ab néeg ca këram gëm tool yii tool yii mbay miñ fi bay mbay miñ fi bay na mbay miñ fi bay moo fondationné néeg boobee tapi yooyee nee na tapi yooyee moo ca topp tap yi sëñ Abdou Lahad joxoon ndigal nee na tap yi nga xam sëñ Abdou Lahad joxoon na ko ndigal sëñ ci tool yii tool yii lañ baye ci lañ bayee la ca jiitu la ca jiitu ginnaaw sëñ Abdou Lahad nee na ginnaaw sëñ Abdou Lahad bëti néeg bi mu jox sëñ Mudu Roqee néeg bi mu jox sëñ Mudu Roqee ci kër sëñ Touba gi ci kër sëñ Touba suuf sii suuf sii fa lañ bayee fa la ko fondationné loolee ko fondation jumaa yi Daaru Salaam ji nee na jumaa yi Daaru Salaam ji nga xam ne moom la mbokkum taalibe ne nga xam moom la mbokkum taalibe ku wax Abdoulahi Dia ku ñuy wax Abdoulahi ku ñuy ci njabootuk Alaaji Ibrahima Dia di yee salaat di ba fondation ba 1987 1987 ci suuf sii nee ci suuf sii fi lañ ko bayee. fi lañ ko bayee de. sëriñ Saalihu. sëriñ Saalihu. liggéey bu mu mas a woote. liggéey bu mu a woote. sëriñ Modou Rokhaya. sëriñ Modou Rokhaya. lam ca jëf. lam ca jëf. la ko fondationné. la ko fondationné. ci suuf si lañ ko bayee. ci suuf si lañ ko bayee ku dégg gerte gi mu joxe woon. mu toll ci ñetti téeméeri bërigo. yu tegal. ci suuf si. nee lañ ko bayee woon. jalba. soriwul dara woon fii. kon suuf si. fu nu yàgg a liggéeyale. a la. di ko jox sëriñ Touba. Serigne Touba. loolee nag. nee na loolee nag. moo fi nekk. moo fi nekk. jugu fi. jugu fi. ba bisub tey jii. ba fi liggéey. nee fi liggéey. ñi ko fi nawetoo. ñi ko fi nawetoo. ak ñi leen ko jàppale. ak ko jàppale. su noppee. su noppee. joxaat. nee na lépp Serigne jox de. te loo jox Serigne Touba. nee ko. nee na ñàkkatoo ko de. ndax duutu maxe. nee na ndax dootul maxe. duutu rab. nee duutu réer. te dana la ko dencal. te dana la ko dencal. ba ëllëg. ba ëllëg. fa amee njariñ. fa mu amee njariñ. mu génneel la ko fa. mu nag. nee ci yàlla yàlla boole ñëpp. nee na yàlla na ci yàlla bi nee murit du wàcc. lu daanu. nañ song leneen. nee na daanu na. tawfeex Longoor Mbay. nee na moo ci topp. doon gaaw bii di ñëw. war ka ko bay. di sëriñ Cheikh Mbay. moom sëñ Abdou Khoule. moom sëñ Abdou bay ko ba mu àgg. mu àgg. jébbal ko sëriñ bi. mu dugub jàngook. nee na ko dugub jàngook. aw fépp. aw waa kër gi duñ ko ci jariñoo. sëriñ bi ne kon. Serigne ka am yéene joxe ab tool. ka ku munta joxe ab tool. demal ca ngóob ma. boo ca daggee aw gub. mel na ne yaa joxe tool ba. ca gaaw bii di ñëw rek la. kon na fa ñëpp daje ji. kon dem fa fanaani ajjuma. nee na ku mën ñu fanaani fa. ñu góob ko. góob ko jàllee. bu ñu gàmmoo. gaaw ba ca jëkk. gaaw ba ca jëkk. xam ngeen tooli xel koom. xam ngeen ko xam daaru salaam. xam daaru salaam. xam leen ak xel koom. xam leen ak ko xam tooli daaru salaam. salaam. ya ca xel koom. xam koog waa daaru salaam. moom kooku waa Darou Salaam bañ fa nawetee nee na bañ daa jege woon foore ba ndax daa jege woon yi di ko naan nee na yi di ko naan bañ ko sasee waa Darou Salaam nee na bañ ko sasee waa Darou Salaam Serigne Cheikh la tàmbali am góob foofee la tàmbali am góob ba fa jógee nee na ba mu fa jógee daa dem ci Serigne Saliou mu ñëw ci Serigne Saliou ne ko nee ko Darou Salaam kat Darou Salaam dañ koo sas waa waa Darou Salaam ñu dem di ko góobi ñu dem di ko góobi fekk Touba am dugub daaru na daaru Rahmaan am dugub. daaru am dugub. daaru Minan am dugub. am dugub. daaru Tansil am dugub. daaru Tansil am dugub. Eh, tool yëpp am dugub. tool yëpp am dugub. ba mu des daaru Salaam. kon nag. kon nag damaa bëgg bis naka ren. bu daaru Salaam ñàkkati dugub. bu daaru Salaam léegi. ku fa dem am ngóob. ku fa dem fekk lu baree baree ba. loolee Serigne Cheikh a ko sàkk woon. ci Serigne Saliou. ba Serigne Saliou defal ko ko. Serigne Cheikh toog fi. moom Serigne Saliou. na leen sas woowee. na leen sas woowee. waa Darou Salaam. waa doon góobal Serigne Touba. góobal Serigne Touba. ci toolub Darou Salaam. ci toolub Darou Salaam. jox naa leen ko. jox naa leen ko. féetale leen leen ko. gaaw bi topp ci gàmmu gi. topp ci gàmmu gi. la Serigne seex wax ne. la Serigne Cheikh bëgg na. bëgg na. ajuma. ajuma wala alxemes. wala alxemes. ku mën a fanaani. ku mën na ñëpp dem xel koom. na ñëpp dem xel koom. Serigne Saliou kat waxoon na ne. Serigne Saliou bu ma wóoroon ne. bu ma wóoroon dem nañ xel koom. murid ma bàyyi koo bay. nee ma bàyyi bay. ndax la ma ci jublu. ndax lam jublu. faj aajoy murid yi. faj aajoy murid te ku taxaw xel koom. nee na sa ajo faju. sa aajo te ñun ñëpp aajo ju faju lañ bëg ñëpp aajo kon nañ waajal xel koom. kon nañ waajal xel longoor. waajal sëriñ bi taw sant sëriñ di ñaan nag. di bi nag nee na mi ngi ñaan. li sëriñ bi nag tem nekk ci magasin yàlla yi. Mm, tem nekk ci magasin yàlla yi. ca doomu aadama soxla woo ko. nee te doomu aadama soxla woo ko. ngir liggéeyal ci yàlla. ngir liggéeyal ci yàlla. ak liggéeyal ci Serigne Touba. ak liggéeyal ci Serigne Touba. mu di ak wér. mu di ak wér. ak wërsëg. ak wërsëg. yàlla na ko tisaare ci njaboot gi. yàlla na ko tisaare ci njaboot gépp. mbooleem ku ñëw tawfeex. nee na mbooleem ku ñëw tawfeex. boo delluwaatee. boo delluwaatee. bala ngaa delsi. bala ngaa delsi. yàlla nga yokku. yàlla na nga yokku. ba yëg na yokku nga. ba yëg na yokku nga. ba bu nuy ñëw. ba bu nuy ñëw. kenn ku ci nekk. kenn ku ci nekk. ne sëriñ bi samab camion. ne sëriñ bi samab camion. wala samab duubal cabine. wala samab duubal cabine. wala sama 4-4. wala sama 4-4. moom lay yóbbu tawfeex. loolu bi loolu sëñ bi na ko. nee na loolu sëñ bi mën na ko. yàlla nañu ko na yàlla ko defal. ci barkeb tawfeex. ci barkeb tawfeex. jërë ngeen jëf na ñëpp nangu ñaan. amiin sëñ bi ne.